umpalewu leen ne euh, jamono jini que presse bi mi ngi dundou ay jafé jafé yu metti et que tey Jini sax dañoo worona def une minute de silence euh, parce que en fait pour xamal que jafé euh, jafé yi tar na tar goo xamante liberté de la presse mën nañ né sax fatuna na waral une minute de silence bobu nonou et euh, yaakaar naa ne depuis ab diir a ngi nii presque ay at a ngi musul yu mel et yu Euh, nii boo dee xool euh, nekkul ne parce que dañu jàpp journaliste walla technicien duggal ko prison rek moo tax walla ñu couper signalu fi ay télévision moo tax walla yit sax euh, ñu diñuy defar ay accusations yoo xam vraiment amul lenn ci yenu manam mo moo war a mën a tax et boo xoolee loolu ñuy dund noonu yëpp tey jii dafa war a tax ñun taskatu xibaar yi ñu tubayu taxaw temm pour défendre suñu profession ndax cër gi ñu am ci wàllu démocratie et euh, li nga xamante ne nag euh, moo am mooy que ne état bi boo di xool lu ci bëri euh, bu jëlul fisc bi teg ci kaw entreprise de presse yi

mais aussi ak yeneen i jafé jafe yoo xam te ne ni mu nekk nii ngi euh, taxawal ay pour ci bor a mën a war cee andi safara donc pour wax leen nek rek manam mbir mi du mbirum économique kessé mais aussi it euh, ba ñu gisee euh, lii raam jëm ci ñak li le 3 mai 2021 defon nañu assise devant le ministère de la communication pour alerter xamal nit ñi ne kat jamono ju ni jamono jii Sénégal liberté de la presse mi commencé soxé et bagn kay wax booba euh, rapport Reporters sans frontières génnagul woon et ba mu ci lañu ñu perte vingt quatre places bu mujj bi ni passé ci lañu ñu perte cinquante quatre places pour wax leen nek manam ñun ñi kay dund gis nañ li xew et nekul né rek parce que jëlewuñu fi journaliste euh, dàquñu fi journaliste wala tëjuñu fi euh, organe de presse étrangère que euh, liberté presse sooxewu fi parce que li ñuy dund ni tay ci côté économie parce que su koom-koom bi dafa soxé trop ci walu presse bi journalistes yi nga xam ne ñi lañ tëj prison wala ñu ñu ñu ñu takal leen lam wala ñu nekk en euh, liberté euh, euh, conditionnelle loolu jéggi na dayo mais légui nak li am ba am moy que né manam du pouvoir bi kessé ndax ndaxte boo xoolee presse bi dafa am ñaari côté yoo xam te ne ñoo ko séq kii di dóor fii kii di dóor fële bu teyee ñu ne ah kii kat journaliste corrompu la journaliste vendu la bu kiiwee ñu ne ah kii kat journaliste opposant la kii kat opposition bi la la la fare wala ñoo koy financé wala ñoo koy ñoo ñoo koy euh, euh, ñoo ñoo koy toppatoo ba tax na tey jàmm jamono ji pour gis fi journaliste wala rédaction boo xam te ne euh, amul njaqare wala nekkul di def liggéeyam comme il le faut dafa jafe donc esprit critique bobu ñu bëgg a suñu biir il faut que ñu bañ ko xamné carrément que journaliste dafa wara nekk impartial def liggéeyam comme ni que euh, texte yi mais surtout nak en toute objectivité et buñu ñu kenn tiital di ñu ba tax ñu wacc yoon wala bok ñu wara a métier bi nenene